الأحجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير karim ci yi dem fa doon na ay jafe-jafe yu metti li ko waral yoon wi moo dagg yàqu am ay pax rawatina nawet gi ñu nekk loolu nag kilifa gii di Serigne Cheikh Alioune Mbacke yàgg nag di si dox saafara fu nekk mu diis ko fa ba sax mujj gi dafa jël ay moyens boppam jël ay xeex latérite ngir sëkk ko lu nu mel sax mu ne bu ko defee dafa rek delloo buum sa booy boy ba ndax ku xam Cheikh Modou Moustapha sa jamono ba muy metti xaarlu woon kenn rawatina nag léegi moo waral mu amal jëf ju ni waaye nag jàpp na ni si beneen wàll danoo bokk si biir réew mi Fatou Ndodi di gox bi nga xamante ni si Touba njabootu Serigne Touba gi ñu bare fii la leen tàggatee ak Cheikh si kon nag melokaan bu nu mel mérité wu ko bu nu sukkandikoo si Serigne Cheikh Alioune Mbacké. mbayit ci sa wewu tànk euh, dañoo ñëw fii euh, di jàng Matlabul Fawzayni ni ko sëriñ Touba binde woon name woon ko ci dëkkam bi nu dëkk ci Ndodi te alquran wax na su borom wax na ci alquranul karim bu baax a baax alladina amanu wa amilu salihat tuuba lahum wax su maab Serigne Touba joxoon ndigal Cheikh Mahamadou Fadal mu baax. noonu la joxe woon ndigal li sëñ Modou Rokhaya Bousso bu Gédé. ak Cheikh Mahamadou Moustapha ne leen ngeen sanc ak Serigne Massamba euh, euh, ñu wax leen ñu ñëw euh, sanc fii di bay di jaamu yàlla tey siyaare si Touba. ñu seetlu na nag tindoodi gi nga xam ne xalifatul awal muy Cheikh Mahamadou mustafa nga xam ne moo wuutu Serigne Touba lam ko digaloon lépp def na ko defaale ko képp kuy murit moo di sas ko jumaa jumaa ji ñu indi ci ay conditions yu méttee métti mu fexe ba mu ñëw ndax conditionnalité la woon ci affaire tabaxu raay bi mu indi raay bi indi ko ci jumaa ji euh, dëkk bii muy tundoo di Husnul Maab la euh, ci tuut tànk euh, toppatoo waa sëñ tubaay Touba yëpp jàppe leen ne Serigne Touba bañ defe woon ne seen taalibe baay la fii ci tundoo di ñu jàng ci daara yi sëñ Modou Matar Allé mu di sëñ bu sëriñ Saliou sëñ Abdoulahat sëñ Moutala ak ñu mel na ñoom ak cheikh su mag sa nga xam ne ñoo daroon Serigne Touba ñoo ñëpp fi lañ jàngee ci Tindoo di mu xosnul ma ab boobaak léegi ëpp téeméeri at te amul yoon wu ñu yóbbu Touba te Serigne bi dafa waxoon ne ngeen dem foofa di ñëw di siyaare ji ñun nag amuñu fuñ jaar ba siyaare ji Touba wala boog ci jafe-jafe lay doon euh, tata yi fii jaar yëpp yàqu nañu sareet yi euh, moom yëpp pan nañu fas yi dee nañu mbaam yi dee nañu nit ñi nag bu fekkee ambulance day ñëw sax bu guddee bu fekkee daa yor malade bootul du egg te jooytu nañ ko fu ne fu ne fu ne fu ne xarabun kenn nag waaye ci réew mi la bokk kon loolu moo tax nu xam ne euh, euh, xëy na état mënut a def lépp waaye citoyen bu ne war naa xalaat ne dafa war a def dëwaaram door a réclamer droit am kon ñun def nañu suñu dëwaar ndax bu dee ci impôt mbay gee ngi nii moo yor mooy chef de village bi 19 délégué nekk na fi ak chef de village loolu lépp wax nañ leen ñuy fay impôt kayit yaa ngi fi def naa ne ni ñu ko organisé néew na fu ñu ko organisé ci Touba parce que xam nañ ci dara moo tax te sonn nañ ci nit ñi te nit ñi ñu baax lañu loo leen wax ñu ngi koy def ñu ngi def seen ñu ngi def seen devoir kon nag suñuy droit itam duñu ko xeex mukk ci àddina waaye nag sañ nañoo nekk citoyen yu am yoo xam ne dañuy nekk ay référence mooy duñ ci boole coow dañuy jëf ndax sëñ Modou Moussa ba muy defaraay bi kenn foogul woon ne ab particulier Moussa def ci àddina ci lañ ko jëkk a déggee ci lañ ko mujj déggee defuloo nit ab raay mu nangu ko ci diir bu néew mu defar raay bi ba mu ba ñëw Touba ñu mën a tabax jumaa ji euh, li Sëriñ Touba battale woon lépp mu def ko yaakaar naa ne bu fekkente ne mooy sunu maam jur sunu waajur du nu jaaxle mukk ci jafe-jafe. bala ñoo am lu nu neex rek ñu ani jafe-jafe te ci leen dëkk ndax ci la dëkkoon te munu fee ñàkk te jafe-jafe moo yóbbu woon Sëriñ Touba euh, ca géej ga ba tax lii mu am tey mu am ko. ba mu naan ilaa qaadalaahu maa lam yakuni nit ñi comprendre luñ ko waaye loolu projet la projet nag xam ngeen doxalin bi da ngay def requête de financement def adjudication def yooyu yëpp ba ba bañ toll ci phase de réalisation sëñ Touba yàlla melal may na ko loolu kon nag ku xool ca ñooña référé wu ci ñooña incha allahu yaakaar naa dara du la jaaxal kon ndimbal na ci fekk loxol borom noo ngi sant yàlla bu baax a baax bam nu booleeg mbooloo ko man na def lu mel nii dañ koo tàmbali tey nag fas yéene lu ñëw bu jal yi dajaloo rek ñu indi peel bi mu maasale ko bu paree ñu indi gradeur bi mu def ko nam ko war a defee muy suñu participation ci réew mi. mbooloo mi tey loolu lañ tàmbali mooy xeer yi nga xam ne indi naa ko fi euh, muy xeer yu xonq di latérite ñu sakk ci pax yi. Euh, en attendant mais dañu bëgg tali bi yëpp ñu def ko noonu bala noo bàyyi dana dana mel na melatoon bu ko defee nuy xaar yàlla nag te yàlla ci ci yàlla rek la ñu wéeru waxtaan waxtaan naa ci ak Serigne xaar ci lii ne ko danaa ko defar nee na itam def na ko muy mbiram bu soobee yàlla te loolu luñ ko defar defar fekk defaruñ ko goudron du durable du mën a yàgg. kon nag na ñëpp xam ne euh, amuñu fu nu jaar ba ñëw tubaa kenn mosu fee jaar jàpp ñu te ñi ñiy ñaan ndimbal ku ku ñu ci jiwul nga amul waaye kum ci mën a doon même bu la joxee téléphone bu yëf yi bu amee lam bëgg boo ko wootee dootoo ko jot karaj lay def kon nag nanu konte ci suñu borom tabaaraka wa taala Euh, ndax sunu borom rek moo yor lépp mooy faj ajo yi kon nañ wéeru ci moom sukkandiku ci moom roy Cheikh Mahamadou Moustapha ba muy defar raay bi ci loolu lañ sukkandiku. waaw di sant sëñ Cheikh Aliou mi mu wowoon mbooloo mi tey ji waa Tundadi gépp génn wuyu woon ko tey ci pour lan yoon wi waaw yoon wi ku ne gis na ko ku ko seetaan télé rek tey da nga xam ne yoon Tundadi tey ji jàppoon nañ ne romb na fi waaye fii la toll sëñ Cheikh nag dox na ci ay jéego ba sonn wet gu ne jaar na fa. waaye ba léegi yoon dafa xaw a dëgër ñun waa Tindori nag ñun ñoo génn tey pour jàppale sëñ Cheikh Aliou ci li muy dox ndax sëñ Cheikh Aliou ci yoonu Serigne Touba bi ku ne xam ne li ciy liggéey ab liggéeyam fës na lool wàllu waa Maawa Rahmati dafa doy sëkk firnde waaw sëñ Cheikh Aliou moo ko jiite gis li ci doon doxal lépp macha allah tey nag li ñu gën a ñor mooy yoon wi sëñ Cheikh Aliou liggéey lañu lépp ci Tindori indi nañu ndox tabaxal nañu juma yoon wi ñu jaar bay dem di liggéey di wàcc moo ñu të sëñ Cheikh Aliou nag taalibe la ndax koro ba mu ñuy woon na ku kuy jullit ñëwal dëkk si tundoo boo ñëwee ma may la kër jullit rek la wax ràññu kee sama taalibe ràññu kee sama taalibe benn ci man mii di wax ak yow këru 25 mètres la ma may si 30 moom la ma may joxewuma ci dërëm daaru minam laa bokk jàpp naa ne kër Touba pour ma ko du yomb ndaxte kuy liggéey taqale rek am néeg da lay jafe wutuma laa kër ndigal nag mooy lépp koro ma may kër méttoo na torop am mbaar laa fa dem waaye lépp fekk na ma fa maa ngi tudd Aly Dieng jiite saw Ndodi ma jaare ci yoon sama yaram gisee yow ànd di sëkkal yoon wi ci te muy sëtub sëñ Modou Moustapha tey ñu jàpp ni yoonu murid lépp lu mu am tey sëñ Modou Moustapha moo ko organisé ba ñu am ko ñu si mooy ànd ak sëñ bi fépp ñu taxaw fa ku fi am ñoom bo tax sekonte ne boppam ndax Ndodi ku daf laa yaatu nga ëndërëm noppi tabaxal ñu jot ñu siy julli di jaamu yàlla kon tey yoon yi bu fekkoon nekk na si poosam dina li mu man wane n ko boo xoolee jalu yu bëri yi mu jënd sam boo waar yu sëkk yaram démarche bu nekk def na ko ngir jafe-jafe bu yàgg bi ñu indi si solution am na sax ministre de la république bu mu si doon jokkanteel ba mu tàmbale woon indi ay solution waane dafa mel na ni ba léegi France daal di xëndeen. ñuy may sant nag Abdoulaye Daouda Diallo jéem na ci ba tey ba yëf ñëw ci dëkk bi waaye la ko yàq duñ ko xam. jéem na ci ba tàyyi maa ngi koy sant bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla jéem na ci waaye nag. jaam ak pexeem yàlla ak dogalam waaw kon alhamdulilah ñoo ngi sant mbooloo mi yëpp ñi nga xam ne agglomération Tindodi ndax fenn gënu ko rëy ci Touba ndax ma nga ca tàmbalee ca ca biir dëkk ba jaar ba Ndindi jaar ba ba ba ba Guédé rëy na rëy goo xam ne fukki délégué ak juróom-ñeent fu ñu nekk du tuuti ak seen chef de village ñoo fi nekk. kon nag ñoo ngi sant mbooloo mi bu baax a baax gis ngeen leen nii bu ma nee jóg leen ñu jóg lu ma leen wax ñu def ko boole ko kenn ku ne bi ñu yëgee ne def naa fi xeer wi xeer yi ci camion yi gis ngeen ko euh, bàyyiwuñu ko lancé nañ appel ci réew mépp képp koo xam ne sunu soppe nga sunu xarit nga sunu amee nga. te nga yoonu Cheikh Mouhamadou Moustapha mii nga xam ne ñor na la euh, na nga ci jàpp ñoo ngi leen di jégal ñu jàpp ci rawatina nag ñi nga xam ne euh, maay seen njiit ci ci ci pencum sëñ Touba euh, am ngi jàmm yi bari nañu soppe yi bari nañu xarit yi bari nañu maa ngi leen ci woo bu baax a baax ñëw wax dëgg yàlla fekk bala ñoo bàyyi tey dañuy maasale nii rek tàmbali ko waaye camion yi du jeex lancé nañu appel ci Sénégal gépp ci fukki région ñeenti yëpp fu ñu fa am daayira rek ñaan nañ la nga ñëw jàpp ci fu ñu fa amee xarit ñaan nañ la nga jàpp ci samay xarit yi ma daan jàppale démb ak bërki démb maa ngi koy wax maa ngi koy wax Mbaye saar euh, di ko wax euh, euh, El Hadj kebe Kébé man jong yàlla na ko yàlla xare àjjana moom it wuñ ko bu baax boog së El Hadj Serigne Gueye yàgg nañ maa jàppale di ko yëgël sëñ Moustapha sekk nit ku baax la ku mën a jàppale la. maa ngi ci woo it Arona Coumba Ndofène Diouf Euh, bu ma waxee Arona Coumba Ndoffène Diouf nag sama xel dem ci maamam ja nga xam ne moo doon Buur Siin Coumba Ndoffène juuf ak seede su rafet sam defaloon Serigne Touba moom itam xolam di yaatu lool muy defkatu lu baax di sama xarit lool lool lool waaw lu ne mu koy daj ci lépp lu baax rek euh, ku ko ko xam rek dégg ko ci lu baax loola. moom itam euh, Ousmane Ndiaye seen trace moom itam noo ngi ko koy wax di ko wax Mbaye Sarr Sénégal tur suñu xarit. ñoo ñëpp ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi leen koy yëgal ak Njaañ Fall ñoo ñëpp ñu ngi leen koy yëgal ñu bokk ci yoon wii nga xam ne Cheikh Moustapha moom la amoon ñu wax ko mu jógee Tindodi di siyaare si nu nu nu mën a sàmmonteeg loola ndax lu fa war a am rek noo ngi ko fay jéem a def sëriñ boobu itam ñoo ngi ko ci woo sama rakk la sëriñ boobu waaw ko baax a baax la sama rakk la lépp lu ma ne ma nga ca ak ñeneen ak ñeneen bari nañu bu ma leen tuddee ñooñu rek ña ca des xam nañ ne tudd leen te xam nañ ma ñi may gis maa ngi leen ñi may dégg te xam nañ sëriñ bi nag mi ngi lancé appel tàmbalee ko ci njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha waaye tamit mbokku taalibe yi ak bon volonté yeeg partenaire am yi ñu mën a dugal seen loxo ci liggéey bu nu mel ngir ñu am solution ba faw tali bi la Crédit Ndoli ak Touba état bu jéggi daay la nekk rawat na nawet bi ñu nekk loolu nag tax na sëriñ bi jël ay matukaayam ngir indi ci solution tamassaktu bil hablil matini murattilan wa bil urwatil wusqa lati hiya nuuru bii sirtu min rabbi li rabbi muwahidan wa hawli nasara wal buhuru tamuru huwal kanzu wal kibritu wa zaadu li huna bihi tantafi naarun gadan wa suburu